mi di président Macky Sall ngir nag nemmeeko ñi nga xam ne ñooy médecins yi faj coronavirus ak askan wa nga xam ne ñoo tëdd ci lali hôpitaux yi yéen kaay gi de Le Quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky Sall ginnaaw tournée économique bi nga xam ne defoon na ko ci réew mi jamono ji Macky Sall ab tournée sanitaire la Macky Sall doon def yéen kaay gi di réew mi Quotidien nee na Macky Sall tere na lépp loo xam ne jëm na ci wàllum rassemblement nee na ñuy takk masque yi nee na ñuy laxas loxo yi nee na ñu ñàkku Macky Sall journal bi nee na changé na nag li nga xam ne mooy communication gi nga xam ne Macky Sall dem na ko ci centre yi nga xam ne fa la ñuy fajee coronavirus loole na Macky ndax Macky Sall nag bu njëkk nag bu doon wax daal maanaam da doon xupaate maanaam di nappaate di menacé askan wi léegi nag kàddu yu Macky yi maanaam daal def koo nooyal journal bi nee na en tout cas kàddu yi jamono ji ma ngi jëm ci sensibiliser ñi nga xam ne ñooy askan wi léegi daal xuppatule na da di neexal yéen kaay gi di 24 heures xëy duñu xibaar Sarr naan ñu Macky Sall mi nga xam ne ñetteelu vague bi bëri na ñoo xam ne moom lañ ko tuumal est-ce que nag Macky Sall demutoon di jéggalu askan wi ndax nag li am ba de Sall mooy Macky Sall dafa dem ba xam ne def na erreur ci mbir mi te nag kàddu yi nga xam ne ma koy faral di yëkkati moo ko Abdoulaye Diouf Sarr askan wi dañu ko doon jël doon ko sànni sa mbedd ma yéene kaay gi nee na en tout cas daal wi na xaw naa baax yéene kaay gi di la Soleil nee na lu toll si juróomi téeméeri junni ci ay doses ni jamono ji disponible na am na ñaari million ci yoo xam ne ñoo ngi leen di xaar loolee kàddu yu Macky Sall la ma ngi ci journal bii di la Soleil yéene kaay gi di l'Observateur nee na en tout cas li am ba des daal mooy coronavirus ma ngi wéy di def ay njombe ci bërëbu fajukaay yi ñi nga xam ne sax ñoo nekk ci bërëbu fajukaay yi di faj coronavirus am na ñenn si ñoom ñoo xam ne nee nañu jamono ji mbir mi nag dële na ëlëm ku ci mel ni docteur Ibrahima Fall nekk ci hôpital Dalal Jàmm nee na dafa traumatisé mbir mi def koo jaaxal bu gisee am ñoo xam ne ñoo ngi dee ci seen kanamu njaboot docteur Khadijatou Diallo mi nga xam ne moo jiite centre traitement bu nekk hôpital Fann nee na ñoom jamono ji dañoo sonn ba maara day taali te nag bëri na ay médecins yoo xam ne jamono ji ñoom seen bopp ñoo feebar yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaara naan ñu maire bu njaareema limaamu laaye di bay di sëy moom coronavirus bi moo ko yóbbu yéene kaay gi nee na ma ngi ko defee ci hôpital Aristide Le Dantec yéene gi di sud quotidien nee na bu ñu waxantee dëgg cacophonie dëgg moo am ci ni nga xam ne moom la ñuy doxalee coronavirus bi ci Sénégal yéene kaay gi di libération nee na nag mars 2020 ba sunu yàlla joon na tey ci coronavirus bi faat na lu toll si fukki junne ak ñetti téeméer ci doomu réewum Sénégal yéen kaay gi di direct news bàyyi mbirum coronavirus bi wax nag ci conseil constitutionnel bi nga xam ne fan yi ñu génn coow li ne na woon coppee njiitu réew di président Macky Sall ni ki démb daan nay tabb ñu bees ñetti magistrat bees ngir nag ñu mën a complété ñeenti magistrat nga xam ne ñoo desoon sa conseil constitutionnel jàmm ne ñooy yéen kaay gi di Dakar Times nee nag mbir nag mën naa andiwaat coow lu rëy ci réew mi rawate na lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi yéene kaay gi wal fajiri nee na conseil constitutionnel dafa amoon problème maanaam dañoo tóoloon loolee problème la woona yéene kaay gi nee na nag beneen problème nag nag moo ñëwaat conseil constitutionnel la mooy Mamadou Badio Camara mi nga xamante ni Macky Sall daan na koy nommé yéene kaay gi du l'observateur ñu xëy fekk fa Malick Gakou nee na en tout cas la confrontation est inévitable maanaam jàkkaarloo ak ak moom loolee munta ñàkk yéene kaay gi mi nga xam ne moom la ñu tuumaloon ne moo taaloon jëkkëram ca maris tey jii la ñu koy létt wala ñu firi ko ci chambre criminelle waaye nag soo muy tuulee dinañu ko tëj ci li des si ak dundam yéen i kaay gi de la Soleil xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum Côte d'Ivoire nee na Alassane Dramane Ouattara ni ki démb daan nay recevoir ki nga xam ne mooy Laurent Gbagbo ñoom ñaar daat la ñuy waxtaana yéen i kaay gi de la Tribune nee na impossible n'est pas politique yéen i kaay gi nee na élection locale yi bu ñu ko dàqee ci réew mi bu mu leen bett élection locale yi bu ñu ko dàqee bu mu leen bett yéen i kaay gi di sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu mboole